conseiller duma conseiller ya, ben ndaw nga top ap politicien mais ñoom ta ñak faaw ñu top leen ah, dinaa ci ñew waaw ñu dem parce que tay mu leer nga wax waaw duma wax ben ndaw mu jaral ko muy ray mu mu, ray bopam ndax politicien waaw euh, gis nga boy ray sa bop te say wajur ji dund reyal sa bop ci say wajur bo pare Dok doo ko mës kenn du la topp dañ dañ lay doo topp kenn dañ lay topp. wér na. yaa ngi dégg. bu baax. Euh, parce que xam nga léegi àdduna bi ni mu doxee dafa am ndaw yaa nga xam ne dañoo sàggane seeni waajur. waaw. muy lu metti ci xol nag parce que. mbirum àdduna wala ay nit àdduna am na ñeneen ñu leen manipuler ba xii leen ci seen bopp ñu wocc seen i waajur fële ne leen fu ñukk ak ku mënti doon nag am na si ña nga xam ne ñu ngay woote mbiru yàlla noot ay ay ay ay nit. waaw ñuy ñëw di leen demal Safa ak wa te lañ leen lañu fa nekkee du yàlla du yonent war wan gannaaw seen waajur muy lu metti ci xol léeg-léeg gis ñoo xam ne dañuy bëgg récupérer sax seen doom mais mënuñu ko récupérer. Eh, nga gis politicien bi tamit suñ demee ba pal jot wala nga xam ne moom tamit def na njomb ba dara nar koo gàllankoor wala mu nar a gàllankoor palam am na système bu muy def pour manipuler ndaw yi moom tamit ñii ñu rey leen ñii ñu blessé leen ñii ñu tëj leen kaso <laughs> moom moom bu falu jotee mooy falu. waaw kon ni mu amee ci saare si noonu la amee ci baatin bi. noonu la amee ci baatin bi sëñ Tuubaa lu mu waxoon ku gis aljana bu amul jaamu yàlla. waaw. Hmm? waxoon na ko de. ah. bu amul jaamu yàlla de. Eh, moo tax gis nga bu ñuy wax ci su tedd ki sax suñu xol day tooy dafa am benn waay bu fa mos a di si sëñ bi tu gis benn daa mu ne ko xanaa kii sab taalibe la sëñ bi ne ko déedéet dafa bokk ci ñi yàlla nëbb sama ay laa ilaaha illallaah. <laughs> xoolal ku toll ne sëñ Tuuba <laughs> <laughs> est gis nga dimension bu mu waxee. ku toll ni sëñ Tuubaa tey bu doon man sama classe nga xam ne séeréer dañ may wër wala joolaay boo ñëw nga ne ma ah, kii sama ah kii sama sëñ sama taalibe la <laughs> sama taalibe yi la bokk mais dégg la sëñ bi tontu. Euh, moo tax Matar. waaw te lu tax encore ma leen di gën di ñaax mooy xam nga tey société bi dafa dégradé

ay jigéen yoo xamante attan na ñëw doog ci ay réseaux sociaux wala ci ab kii nga ne dung dungaaral génnee say cër génne sa à visage découvert ah ñëpp di la gis di la ne fang ne xam ne kii diw la. waaw waaw Matar imaginer kooku su demee ba am njaboot. yaa ngi dégg. dem ba mag parce que attention am na lu Fatou Guewel doon woy topp sa ndaw. waaw <laughs> nañ ci def attention ndax mag ci mu ngi ci yoonam di ñëw. nga dem ba am 60 ans yore sab kurus jur sa ay jur ay doom attention doom yi ñu am moo xam la ñuy xëccoo comme ci mbirum àdduna politique beeg yaa ngi dégg. toog ci plateau télé yeeg toog ci réew wala mu am ñun mu def leen ay kilifa. am na nu muy waxee ñu ne ko sa yaay mu ngi woon nii ci réseaux sociaux yi nii la meloon démb mu ngi nii. loolu lay mujjee doon xas. xas lay doon te bis bu ñu ko génnee yow boo mootul doo ko di nga nëbb sa kanam say bët. moo garaaw laa lay wax. te pourtant tey bàqu la. ndam la dañ koo def pour buzz dañ koo def pour bëgg siiw dañ koo def parce que. dañoo topp napsu. waaw <laughs> xamuñu ne c'est un danger. xam nga ñu ngi naan toll ci def ko aayul. waaw waa waaw noo koy defee. ñëpp xam nañ ne ku jaar ci ndaw def yëfu ndaw. waaw mais ndaw mais noo koy defee est-ce que da ngaa war a nekk rek ab bàyyi ma boo xam ne yow sab yaram fu la neex nga exposé ko nekk ci réseau surtout nga weex nga xeesal ba weexal nga weex tal taxaw ci biir kii nii est-ce que loolu loolu lañ la wax